ni halle hagati iramu ngakko na kenya o tingame agada karawa kara halle wa shaki duro kenya najira ni gonya tigi najira yara daga iramu na kamera onera onne ndo indikana no karawa Remove Jamani, you're gonna cause them. Remove yourself. Don't talk like this. You are a fucking man. You are a man. Oye, menu mbara. Remove yourself. jamani ke ana bulonina. Hey, you are. Ado jamani ke ana logo. Mar magari ni kama kwa nasano. I said yourself. Take it off. Take this off. arawat najere ñeke inda kan deme de bari debe no ni ni de bari ko ko debe no ni si arawat hey i said remove your hat look at you wait Hurry up, hey, take, take off, remove it, come here. Take out all of this. How, how... Remove your shirt off remove from you. Remove your shirt before I'll knock you up. Look at him, remove it. Please. Wait.

vidéo bi mu génnee ba léegi yéen a ngi mel ni tey ngeen mas a gis góor jigéen ci réew mi ñaata góor yu paccaxee ngeen fi xamee ci internet bi di follow di like waxu leen ci gat tan wi ñëw fi di jaay taat ngeen di tànqal nit ñi mel ni loolu xees la fi. kii fekku leen ko mu juutal góor di lëkkaloo meloo moo leen wan ne góor jigéen la te yéen loolu ngeen cee xamee lu ne fàng ba pare. waaye du ngeen ko wax ndax naafeq yu lekk gat ngeen li ngeen di woote duul gëmu leen ko ci. caga ji kenn xamu ko. góor jigéen yi gën a garaaw mooy yi am mbooloo di xëcc nit te yi nañ ko fi amee garab nag boo koy daane tàmm nañ nga téegal ndeyam ci suuf yenn da ngeen ni wét ragal a doo ci reen wi man alaaji baay mi dara safut nag ku sa baay waxul lu ne sa tubéy ji lan la xàmmeexoo aadama awa boo ñëwee ci internet bi man danaa la ko wax diggante Gambie ak Sénégal ñaata artiste yuy support góor jigéen ñoo fi ne di sol ay rainbow flag ak yëre jigéen te buñ xewlee seen ticket du taxaw nañ ko wax rek tëddee waaye daanaka yéen ñëpp ay support góor jigéen tiktok gële boo fa demee am ngeen fa ay célébrité góor jigéen yéen ñëpp a ngi leen di fóolu luñ dugal nga ni oh my god ay ma a huge fan. mu naan wante xam nga tamit diine bi nii. islaam kay da ngay matale. yéen da ngeen nekk mbaam rek waaye seen xel yi bu yaatu woon tuuti da ngeen mën a gis lii xew. doomi xaraam yi ci west bi xam nañ ne Afrika du yomb ñu suux suxal nguur yi pour xam liñ bëgg. ci public figure yi lañuy jaar boroom tur yi pour mën koo normaliser ci ndaw ñi lii yépp nag fa tabaarakallaahu ki fi jógee di ndaanaan bu mag bi nga xam ne bu waxaan kàddoo may taxaw te daray ndeyi tubaab du jënd aada ak diineem ñeme naa wax ne bu fi toogoon tey dana doon demee neneen gis nga seen démocratie bi gaay di leen naxee du pour fii buur boo ko xóoloo ba tànn ko dafa war a xam dog man de xam naa ne suma baay bi ma jur bu taxawoon ci kër gi tey ne ten o'clock na nine forty five kër gi selaw lay def yooyu sax fa ñuy tëddi loolu mooy kilifa gu xam kàddu njiit yuñ fi xooyee dictateur rek la seen réew yi jaar yoon xoolal Rwanda seetal Libya balaa ñi ñoo nax nga foog ne ñu nelaw ak rainbow flag moo leen jox lool lu nasaraan naan law and order mooy tame ci réew fekk xamewoo ko doo mën a segg yu mel ni nguur gu xam baat du paaka ñaari boor nga war a xam foofar benn nga ne góor jigéen alaaw nañ leen luwaa bi may na leen ko wala nga ni góor jigéen nitewut alaawuñ ko te kuñ ci jàpp danañ la tëj ñu mën a xam foo féetoo bu dul dara sax booy jullit nga ragal si sa borom xanaa waaye non kon dañoo ñàkk suñ dono si loolu tax buñ la ne góor jigéen naka la nga ne waaw nga Gambie moom gars yi bariwuñ fi so loolu nekkut big problème fii nii nga gis ne mun nañu modifier loo bi indi wii boo xam ne ñun ñëpp dañuy fi mun a nekk si jaama. moo tax ñu bari ay pàccax. ñu naan faramarin ngeen yuuxu di xëm man Wally dama ko bëgga Wally Seck xaw ma ndax góor jigéen la de waaye sopoota la waaw Gàmbi gi itam yéen a ngi fi amee Sista Danso ñu muuroon ko fi ba jébbal ko jëkkëtam te yéen a ngi noon ci comment si I love what you do please keep entertaining yéen tawaar la bu fi jàmmee ne seen mbir waxatuñ ko konoon kay ay tries charité ngay gis jiaties booyu paccaxe yi ngay gis ñuy maquillage di def yëfu jeeg boo fi xamoon babili man sa mu wutal ko saafara léegi li ma fi wax tey nii fan su paccaxu ci wannaasu su ma day newu ci xam nga man dey dara jënduma man yuusuf bii dëgg rek lañ fi wax ni ma koy waxee nag yenn yi du mën a rafet ndax jëf weer fetul mbokk yi leen naa feq yenn ñu yàlla boole defal jàmm